ma leen di bàyyi ngeen présenté wu wax eh, gars bi ngeen nuyu. Eh, dafay wax samay xarit dañ doon démb tey <laughs> doo la ñëw. waaw from Yëmbal. non xam nga ne soxna si laay njëkk a nuyu. dafa leer dafa leer. <laughs> Eh, ah, a <laughs> sax. Ah, yow yaa ñu gën a bëgg sax saa yi bàyyi li ngay def quoi. yàlla mais cër bi la. non ñun ay kilifa lañ. dafa leer. <laughs> ay kilifa lañ dafa leer. <laughs> kilifa du ci âge c'est normal. donc c'est ça. Euh, kan moo ëpp lu muy kii kon i i i kii. ko faale moom boo leen doon présenté wu di wax yéenay ñan lan ngeen di wax en fait. waaw dëkk yëmbal. yëmbal. xam na ko bi euh, depuis deux mille euh, fin deux mille seize deux mille dix sept. en ah, deux mille seize deux nekkoon si benn label bu tudd Crashing Music. Crashing Music après à partir de 2020 lañ teg suñu label bopp benn arab musique ak suñu audiovisuel bopp benn arab vision. ok nekk yëmbal tam suñu site quoi. d' accord c' est ça je peux dire quoi am na ay projets yu bëri def nañ ay featuring yu bëri ak ay affaire yu bëri mais moom. pour moom détaillé nekk leen lay nekk quoi donc c' est ça. d' accord yéen ba ngeen débuté seen carrière ba léegi ñaata label ngeen jaaragum. benn à part suñu bopp bu ñu teg benn mooy classique mais musique léegi lan moo fa jëlee woon. suñu contrat wu saa xanaa waxoo sa yoon nekkatul ci ah, émission bi. Ah. non suñ contrat moo fa jeex. yàlla def mu tombeek ñu ubbi ubbiwaale suñu suñu labelu bopp. noonu la fa demee quoi mais amuñu fa benn problème vraiment. exactement léegi lan moo tax ngeen dem ubbi parce que même sa contrat bu jeexee mën nga ko renouveler nekkaat foofu da ngeen fiiratul seen bopp foofu wala wala. non même pas ma ah, fekk na moment bi ñu fay nekk fekk na ñu ngi doon travailler pour après nan la def pour teg suñu propre label quoi nga xam ne lépp lu ñu bëgg dañ koy mën a defal suñu bopp. d'accord c'est ça quoi. léegi yéen ne ngeen yëmbal ngeen dëkk naka la hip hop bi demee foofu noonu voilà puisque c'est c'est à dakaar moom xam nga ay ay kii la quoi ay koñ ak koñ la. Hmm. donc mën naa xam nan la fa hip hop bi demee ndax foofu am na ay jeunes talents yu fay évoluer et yee waaw ampagaay ampagaay ampagaay. ah là tout le monde. yëmbal moom ampagaay quoi yëmbal moom ñëpp xam nañ ni side hip hop la. ok xam nga bëri na ay booy bëri ay grand yu fa nekk yu am talent yoo xam ni ñu ngi ci suuf di job incha allah léegi léegi rek gars yi dinañ leen découvrir quoi. d'accord voilà léegi temps yi passé maa ngi gis ci réseaux sociaux yi envoyé nañ ma sax lien bi ba ma dugg seetaan ko mu nekk lu nice. ngeen def benn son boo xam ne ngeen ko remix son Akhlou Brick bu génn temps yi. bi tuddee moo ci mu bëri bëri politique aussi <laughs> gars yëpp di ci wax. Mhm. léegi yéen ngeen remixé ko ci yeneen anam lu tax ngeen defee ko noonu ak lu tax ngeen jël beat boobu ak lu tax ngeen jël même tempo bi même flow bi aussi. ok. Eh, waaw c'est simple parce que. Euh, ba ñu gisee affaire bi dañoo nekk dafa amoon benn polémique bu ñu amoon entre ñun quoi parce dañu ne woon. ba ñu gisee kii bi quoi euh, affiche bi. ñu ne non xam naa kon mu gisee ñu reetaan ni nii góobamu ni casse la quoi. Ah, ñu ne léegi dañu xaar son bi génn ba son bi génne après ñu déglu déglu déglu ba fin nag mu neex quoi bi mu mhm, mhm. ne mais bi ku ko remix wax si dëkk bi carrément da nga am dara quoi ok te après nag si laa woo jaar téléphone ay ma ay moo jotoon naa. Mhm. man ko booy son bi loolu pourtant ma laa doon xalaat woo naaru naaru mooy ay ay nawet man ko booy mm. soo affaire bi dañu ko remixé quoi. ñu mm. ko remixé gëm naa mu ne ma ah man ko waaw ah, man ko dil la man ko mel ne il faut def lu gaaw parce que sinon après kenn mën na ko def gars yi foog ni euh, dañ ko dañ ko copier wala noonu fekk loolu si si son ahlu brib bi lañ doon bindaalee. tëgguñu ko de genre euh, ba ñuy bind mm-hmm. si son afro-bip lañ doon bindee. genre surtout fin fin fin wu kii bi quoi fin wu baaru aare yu noonu ndax son foofu instant bip dafa libre. ma bind 16 après jaar tamit envoyé ay baar tak tak tak ab ñu ñu créé refrain noonu à distance quoi. ba ba ay 5 heures matin yaakaar hmm. après ñu ne lii baax na léegi instrument mooy problème bi nag pour tëgg ko. ab ba yeewoo si la woo suñu beatmaker yi ñaar yëpp ñu woo leen. mais ñoom ñaar après suñu benn bi mu nekk bu tudd BF di ko shout out moo woo moo woo Wisiat woo Wisiat expliqué ko mm-hmm. Wisiat euh, tamit nekk ko cool mm-hmm. euh, saa jox ma numéro moo woo Wisiat expliqué ko ne ko ñu dañoo bëgg remix son Akhlou Brick bi léegi nag mu ne ma booy loolu amul benn problème maa ngi lay envoyé instrument mu envoyé kon biitu Akhlou Brick bi ngeen jël biitu Akhlou Brick bien avant ñu koy dugal YouTube foog mu leer tamit parce que nit yi nit yi dañoo foog ne Akhlou Brick genre euh, ko non non mm-hmm. Wisiat moo ñu ko Euh, ñu commencé ñu ñu fekk xam bindoon nañ lu des mooy euh, organiser ñu organiser affaire bi. def affaire vite fait après nag mu desoon côté clip. affaire bi sax. après ñu mujj ko tourné ak DX di ko shout out ak benn rakkam euh, rakku Sadik Podi ak benn boy lay ñu fanaan foofu deux jours yoo xam nelawuñ juste pour montage clip bi affaire yooyu noonu quoi. léegi moo tax gars yi dañoo xëy suba gis publier photo. mooy clip bu axlu bi mawti <laughs> ci réew. yeah that's it boobu da ngeen ko clip. Pape Sidi doo dellu si place ko dañ ko vidéo léegi après nag bon c' est ça mu génn après gars mu ngi ñëwaatee dama koy donc c' est ça quoi c' est noonu la fa demee quoi. son la fa demee. ok léegi ba ngeen génnee clip bi ak son bi mm-hmm. puisque c' est le même flow mm-hmm. xam nga le même beat et truc de ce genre mm-hmm. just yéen concept bi ngeen changé ak titre bi rek. amoo leen ci yenn retour yoo xam ne vraiment gars yi di critiquer ni lu tax ngeen defee noonu lu tax créé woo leen parce que Euh, xam nga remix dafa am si si si je parle pas si hip hop sax mais si mhm. musique. Mhm. genre mais ñun ndeysaan fii bu bu fekkoon son bi dañu ko remixé Kaane dañu naan waaye nice mais lan moo tax léegi boo remixé Sénégalais wala nga remixé benn. Mhm. benn nit bu nga xam yéen a bokk même même koñ sax dañu saa da nga da te bu fekkoon Kaane bi la ñaata gars ñoo fi remixé ay son Jay-Z ma ne dañ naan noon waaye doo gain respect yow fekkee son son dib nga yëlwal son saa yaa ngi toppandoo gëmal sa bopp mhm. mais nag heureusement ba gars yi comprendre suñu message quoi si suñu message et que ça a hip hop mhm. genre boo xoolee son bi mhm. di big up suñu gars yu communication bi ñoom Ezel ak Thiago ak staff yëf yëf xam nga naaru dañ ne woon lii na viral quoi na viral genre on s'en bat genre maa ngi wax sama tàmbaay non bul wax loolu bul wax loolu genre genre dañ ne yoon nekku si pour mu pour mu bëri ay vues YouTube mais na viral na tas li moo tax yenn gaa yu bëri maawo di ko shout out di ko shout out jàpp na su baax waa Sénégal gars yu bëri tas ko tas ko tas ko pour gars yi jot si message bi et que ça a réussi ab dañuy gis yenn yenn yu bëri nañu ko doon tas di ko tas di ko tas te loolu loolu loolu loolu pour man moo nekk di di di daw nii quoi yaa ma gën a xam je demande la parole a fait autant de buzz. Mm parce que bi ñu mujjee dégg euh, rappeur bu wax ci problème mu réew mi. Mm-hmm. Euh, boobu ñu ngi doon teg RTS. moom mm-hmm. rek moo nekkoon rajo ci Sénégal fii. bi rappeur yi géejee wax ci problème mu réew. boobu RTS moo nekkoon euh, RTS rek moo fi nekkoon rajo de. amuñu woon sax télé. <laughs> boobu la rappeur yi géejee wax ci problème mu réew boobu lañ doon teg. <laughs> pour te dire que ça fait un bon bout de temps. Eh, ça fait mais da ngay dem sax ba fàtte. mais depuis eh. quelle année les rappeurs ont arrêté de parler des problèmes de la société donc c'est venu à au bon moment. je pense depuis 2015 wala 2016 la rappeurs yi commencé nag. Mm. beddeeku mel na ñu fàtte li xew ci réew mi. Eh. Mm. mbënd bi ci seen koñ yi lay amee. vraiment chômage bi seen koñ yi lay amee. Mm-hmm. gaal yi nga xam ne ay sac kan laa ci gis mu def ci son di. Hmm. waaw waaw dikk waaw. élection day dikk ba romb. coow tension. aji saar bii. population bi ñoom ñoo génn naan ñu ngi xaar ba rappeurs yi ñoom waxuñ. Ah. rappeurs yi door a génn. pour wax ragal waxuñu parce que dañu ko gëm de dañu wax parce que dañu ragaloon nit ñi dal seen kaw. Hmm. dafa am benn gayen bu tudd xaw ma nan góor jigéen bi ne xaw ma satan moo ko ëmbal léegi. oh yeah ah, Lil Nas Lil Nas mm. moom mooy def léegi tendance moom mooy bombu États-Unis maay mm. maanaam mooy def rab bu xew léegi mm. léegi bu ko rappeurs yi toppandoowee ñoom parce que moom dafa xew léegi nañ toppandoo waale lépp góor jigéen géeg musique beeg yëpp <laughs> indi waale parce que le rap du Sénégal est en train de perdre vraiment de la valeur et c'est ça la quintessence mais mais foofu dama lay dog tuuti gis nga man genre euh, comme yenn rappeurs yi nga xamante ni si genre def ñu son parfois comme parfois yenn affaire doon am daaw ñu def son de mais partagé

day gëm-gëm lu ne dafa gëm day gëm-gëm lu ñi ko ñi koy kaasal te gëmu leen au fond hmm. gis nga bu fekkee ki lay ki lay kaasal hmm. yow xam nga ne kii dafa la war a kaasal saa da nga koy teg si ay bonnes conditions hmm. mais à la fin yow yow kaasal peuple ba pare yow tamit saa yi doo jënd seede you know saa yi doo dem concert saa yi doo support tu fais léegi le gars tam day parce que le il fait la musique pour pour génn si parce que léegi hip hop dañuy wax de gars yi ñu si génne carrément yi gën a sawar suba def son boo xam gars yi dañu koy TikTok ñu nekk ñu si délire boobu noonu am na à part yee pour être mm. très très partial avec yeah. Mm. je suis d' accord que mu am son buy dem TikTok. buy fël. Mm, mais bu ñu boîte di ko fecc. je suis d' accord mu am son boo xam ne boo ko tegee conseil gars yi dañuy mën. je suis d' mais dafa am loo xam ne. Mm-hmm. moom moo yokk bu dañee ci yàq. Mm-hmm. dafay manqué. Mm-hmm. te yokku hip hop bi. Mm-hmm. maanaam dafa am fond ak forme. forme baa ngi fi te day gën a rafet day gën a embellir. je ne suis pas contre le sabar je ne suis pas contre mu am yenn ay sonorités yu bees yi. mais la may bañ moo yokku ba. maanaam ci dëgg-dëgg affaire ba quoi. si mu dem ba ñàkk fayda soof. rab bi di gën a pervertir que yeneen musique yi loolu laay ragal. si. dëgg la ah, si waaw parce que comme li comme li comme li xës expliqué rek quoi parce que des fois des comme Pape Sidi mi ngi koy expliqué léegi mi ngi koy expliqué léegi quoi gars yi à chaque fois dañuy xaar ñu leen wax leen pour ngeen wax te alors ñoom li ñu war a wax noonu de bul bul jàpp ni population bi ngay waxal quoi mais jàppal ni sa bopp tamit ngay waxal avant tout d'abord parce que yow bu suukar manqué bu ceeb manqué wala bu leneen ak leneen manqué yow sa sa sa waa famille sax dañ koy yëg quoi mm-hmm. yow ci sa jëm bopp yow da koy yëg mm-hmm. donc population bi tamit dañ koy yëg quoi public a egg parce que booy jënd café di jënd suukar ma dugg ma dugg ci ay trois boutiques quoi amul suukar première boutique bi ma dugg waa dama doon xulóog moom man ko yow nan nga mën a ubbee sa boutique te amul bi nga déglu écriture bi da xam ne ñii li wax ni dafa nekk ci ñoom mm. parce ñun tamit dañ koy dundaal ndax ñun banlieue lañ dëkk donc ñun bu ñu ko defee dañ ko war a def am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñi ngi ci biir temps bi peut-être ñi ngi aisé mais amaana am na benn booy bu nekk ci banlieue boo xam ne moom kooku rek lay déglu wala kooku rek lay faj quoi mm. Macky Sall waxal bu ko déggee baax na bu ko déggul baax na quoi peut dina ko dégg peut dina ko bañ a dégg mais askan bi ci boppam dinañ ko dégg ñoo xam ne kat ñun liñ metti am na ñu koy bokk ak ñun te loolu c'est très important comme li Pape Sidi Fall wax parce même les mbalaxmaan ñoom ñëpp dañ ci war a wax parce que bu méttee day day laalaale seen kër wala am na seen benn partie famille boo xam daf koy laalaale parce que affaire dafa métti dund bi dafa cher mënuñu nekk ci jamonoy pandémie nit ñi liggéeyuñu nit ñi seen salaire yi doyul nit ñi ñi nga am ay problème ba pare nga ñëw yokkaat dund bi mm. saa xanaa da bëgg a rayil ñooñu mooy mooy comme benn partie bi ma wax ci son bi mm. boo xam ne xiif mi ngi koy rey a un problème xam fan on a un problème imagine mm-hmm. nii am na am am ñoo xam ñu koy waaja TikTok nag dinañ ko gis ci bi mm-hmm. mais nit Mm-hmm. TikTok Mowti moo leen di dañ gën a ñeme sax que TikTok Macky maanaam on a un problème xaw ma xam gisul nga xam mm-hmm. Macky am ñoo xam ne dañu message après wala dañu woo man mm-hmm. sax am na sama benn a ragal que Mowti quoi si dëkk bu nga ni a ragal que Mowti maa négg léegi léegi ba pare tamit yow ba pare ñu ñu euh, voix des sans voix yi ñu ma naan voix des sans voix mu ma si mbënd mi genre voix des sans voix tamit gën a ragal euh, Macky que Mowti mais lan la quoi c'est quoi le délire c'est quoi le délire day tëjee na nga fekkee day tëjee genre yow genre il faut il faut nga quitte ak sa conscience quoi. comme ñun ñii ñun suñu génération bii nii si kanam d'ici d'ici vingt ans. Mhm. dina am ñoo xamante ni seen vidéo dafay des si net man chaque jour dama koy wax. Mhm. ñun ñii am nañ ay waajur yi nga xamante ni dañuy expliquer ay héros mm-hmm. naan ñu diw sa maam de defoon na fi lii ak lii mais dañ koy dégg rek mosuñu ko gis mais ñun ñii nii bu mm-hmm. fekkee dañoo def ay affaire yu naay si dëkk bi si kanam dañ koy xamee parce que sa sa ne ko euh, kii mooy sama euh, kii mooy sa maam mu dem day gis bu fekkee da nekkoon fii di wane say awra day feeñ bu mm-hmm. fekkee da nekkoon fii di kaasa sa dëkk day feeñ bu fekkee da nekkoon fii tam di def naka day feeñ bu baax lu ñuy tam. Euh, son boobu noonu ngeen remixé Akhlou Brick ñoo ko njëkk def ñu ciy wax moo ci bàyyil ñi ngay yóbbu. Mm-hmm. voilà yéen selon vous naka ngeen ko gisee est-ce que lu war nañ ko wax waruñ ko wax parce que bëri na polémique ku nekk ciy wax naan li ñu wax c'est c'est un de déplacé lii dafa jéggi dayoo et de ce yi naka ngeen ko gisee. yee waaw parce loolu booy xool. ñu des fois dañuy sax mal placé quoi pour expliquer parce ñoom peut-être am na am na am na ñoom loolu fu ñu ko teg ok peut-être ñoom am na ñoom fu ñu ko teg quoi nit ñi nag liñ dégg rek loolu la ñuy mën a juger mooy Mawti xamal ñi ngay yóbbu. mooy Mawti naa leen invité ñu wax <laughs> voilà mooy mooy mooy Mawti nekkul nekkul nit moo ko naan. xamal li ngay def quoi mm. parce que Maodo suñu borom moo ko yónni na ko defal li defal li mm. te moom li muy def du xoolul kenn quoi xoolul président xoolul keneen ak keneen ak keneen mais peut être ñoom man moom awma dara dara loo xam mën naa ci juger ci son bi quoi parce que seen son ñoom peut ñoom idée bi ñu ci am ñoom ñoo ko xam quoi. voilà. même chose que Diallo wax ah. wax ñoom ñoo ko bind. léegi tamit defaguñ benn interview ñoom pour expliquer donc nañ nañ leen xaar bañ déglu ba expliquer seen thèse léegi après foofu la gars yi doog a d' accord bañ a d' accord quoi. donc euh, ngeen may ñu clip bi s'il vous plaît ñu seetaanandoo ko après ñu déglu gars yi